bari oor yi dana bari peñe yi dana bari. Mm. barke bilaay sama waaj sama waaj nag na fekk nga ma. ku leb la fay de. ku leb la fay. madame Sane waaw. madame Sane Anta. madame Sane ñëw nii xale bu baax boobu. xale bu tubaabe boobu. Mhm. chéri monsieur Sane ba nga jàppee ba tey bawoo. déedéet ba nga dem Mbaaco la ba tey. Mhm. ne woon non non j'arrête ici ce mais danga dem fii si Mm-hmm. barke Seydina ba neewaa ba tey neewoo déet ngay xale bu baax xale bu dal xale bu tubaabe xale bu jàpp sa ñam boole woo daraa ci wax mbaaco mm-hmm. yàlla may la doom sa sëy bi mbaaco di la teg bu yeb boobaa di nga xam ne lebaloo pël a fuuta de te lebaloo ko suni kii <laughs> dëgg nga ñëw ci yow defante ko yow ba mu neex na xale bu baax nga mm-hmm. ñuy foore ngay door ci bët e mbaa jàmm la <laughs> ñuy foore nga daal di koy dëggal ñu kontaan ci lool lool